famille baa ngi ñoo ñoo sës si kii dem comme que nooy na ma indi la sës yaayu góor nii nii ay soxnaam lañ kii de as ndaw bu la woon leen daañu woon pour jaale si ah waa xaritam jigéenam la woon waaw yaa booy man de dama ñëwoon rek ma ni xaaral ma jaare lu ñu bokk ba tey nag yéex naa ñëw mais xam naa liggéey bi rek moom tey dëgg la bu moom day ku baax dëgg yàlla ku oyof ku responsable mm-hmm. ñeme famille surtout boo sër tout le temps yaa ngi dégg famille rek lay wax yaa ngi. Ah, ngeen doon waxtaan si loolu. waaw sama xarit la. mais ça dëgg la kay macha allah. na ngeen daal naa ñëw rek. ma jaale si. li ñu bokk. ma lu rafet. am na la yàlla fay ku baax nga li nga def ku baax rek a koy def. Ah, ah, ay waa ko kon amoo koo ko jàll. jërëjëf jërëjëf amoo koo ko jàll. deplacement bi rek dafa doyoon ndax jot amul. dégguma li lan la. lu ñu bokk rek te gis ko ndigaale. waaye lii jarul woon délégation jarul woon convoi. lii rek noonu la ma ko doxal ma yëg leen ko. man pour man ba nga naan ma wool ma waa kër gi wool ma famille bi enveloppe bu nekk en état nga fi indi. ay c'est deux mille waaw man nag man mi si mi nga gën a yar nag yëkkati deux mille jox ma. kii toog nii jur buum ak moom a bokk jur gi téel ma sa deux mille téel. ndey jaal jaal la rek. waaw jaal mais de de am man garaaw maa la delloo jaal gi ndax li li buu doon ci yow moo ëpp li mu doon ci man. doon ci man. ah xaw ma de. tey ngaa jàpp ci deux mille rek baax na eh, soxna si jëlal rek eh, kii moom ki ma la doon wax eh, ki ma la doon wax ne moo yor lañ sa dégg yooyu mi ngi nii toog non dañuy waxtaan rek. mooy gàddoo lañ seetee mooy tàggate tàggate kanam. am na la yàlla bindal ci yàlla. nit ku baax nga wax dëgg yàlla li nga def ko am kóllëre rek ko koy def ndax mënoon nga ne bureau balaa ko xamee wala bañ koo faale sa yoon nëw ci. waaye li nga def ko xamante woon bureau ba yéen ñaa bu benn jour dama koy. Hmm. war liggéey jour boobu oto yi lañu grève. Hmm. taxaw ci kaw tali bi yàgg fi mu ngelaw loolu. Hmm. bu romb ma. laaj ma fu ma jëm. Ah, wax ko ko mu bokk yoon mu yóbbaale ma. Ah, stop la daal ma nga eh, stop. ah on peut on peut ma ne ko dafa généreux si jigéen ñi ndeysaan. noonu la mel man jigéen ñi bëgg yaay ba nga xam ne ku mu gisal day am ma yow yërmande. dëgg la ay mm. fa yiw. amiin jërëjëf allah. mun nga toog fi nga toog wax dëgg yàlla loo jaay ndax li ngeen seet ngeen ah, ko dëgg yàlla nit xam na nit mhm. dégg na génn àdduna mhm. mu tey dem ba ci ay mbokkam mhm. soo ko defoo dara du ci fekk naa ne fa toog comme que miinante yaa ngi koy ñaanal ñun tamit ñu ngi gërëm ba pare yàlla nañ ko yéex a fayoon alhamdulilah naa borom daal fan nga fii rek si côté Eglo ah, tudd soxna Aïda hmm? soxna gi si si la bokk doo ko wax li nga tudd rek Aïda soxna Aïda laa tudd mais Aïda lañ may woowee. Aïda nga tudd d'âge. nee xam naa dangay toog rek comme dafa tàng moom ñu bàyyi ba yàq añ bi nga naan lu sedd soo damaa ni woon nag comme lu mënul ñàkk la mm. boo ko waajee doo ko def mm-hmm. naa jaar rek def ko benn yoon dëgg la nga toog xaaral rek yoon naa jël ko sax ma def na farata kañ na dem rek wala nga naan lu sedd sax toog ko def na farata la na dem jërëjëf yàlla buñ ko gaaw fay amiin amiin yàlla la yàlla bindal tuyaatu jërëjëf boo ko jaaree kenn ko gunge na xam ah, nga ñu def noonu. xale bi baax waaye léegi fit rek la ñu am. fit de lan la. nga mu wax fi déggoo. lan mu la. waaw ah, man ummi mi kan lay moom xanaa amoo fit gi kii am ba laaj ko yow la yow la kat mënoo ko woon la. yow mi ko fi indi. waaw def sa mosoo ni monument de la renaissance ñoo toog fii. waaw dama ni kii kan la. léegi xam nga pour wax di leer xam nga nooy def xam nga buuf fi mu nekk soriwul mi ngi nii. dangay jàdd kon jàddaat kon dem fa mu ne ma nga fa toog ca fauteuil bu baax tam toog demal wuyu ji ko buntu ba du tëju demal nga dem laaj ko bu boo munul aw ci bunt bi miir bi gàtt nga na nga tëb dem wax ak bu laaj ko ki fi ñëwoon tey sa lan la nga ne doj waaw bay macro ku dee ah macro waaw yow yaa ma ko fi yow mii di na di wuyu a ak audio yow mii di téen di farantu yaa ma ëpp fit noppil bu ma waxu na noppi. na noppi kay. kan moo may noppi di appel vidéo. kan moo may noppi yow di tëj di appel vidéo di wut far. kan moo may noppi loo yow. yow yaa may noppi loo yow de macha allah laaw la cet. jël nga sa mu sa sa kon yow commencé def yi nga def te sa dëkkër fas ne ko la kii yow. kon lu ma wax. musóor ne balaa yow noppi rek yow am nga nama jeeg. ndax yaa ngi jël sa musóor defal ko moom baa jël sa kolte. ndey njaay mi liñ ko may defoo ah, ëpp mu gàddu gelu bu ñëw toog fi naan ay dëkk yow li la may. ci jëmm kii moom waa sën. da ngay nëtt nii waaw am waa sën nag xanaa yow doonatoo kilifa. li ngeen sax dama ko tënk. te bu ma waxee ngeen ne man maa maa jooy sama doom ma mbaam bu la weq nga weq yaa moom yam. waaw la seet noppi du wax. du ma tontu de sën nii laay xool du la tontuwaat yow. tontu ma xool sa message yooyu tontu ma xool. gën a parce que man damay julli ci loolu li ngay wat dafa bari trop koy waxal gaaw leen rek ci la ngeen def mu jot téyoo boo téyoon kenn du la man ci am vraiment jaaxal nga ma quoi yow mu mel ni ko dañuy séddale penku bi moom naan ma gaaw ak kër kër yéene trop dara ah. ñu ngi nekkoon quoi léegi kii rek biir bi doon daw mu yóbbu ko hôpital waaw loolu moom taxul ma xaw maa ngi nii toog soo di xool ndekkiwuma ah toog ba léegi nii ndekki ma mooy la dëgg. ndekki ma. ndekki laa ngi fii ci waañ mi léegi laa romb mi si mburu yi foofu noonu. Ah, foofu am na lépp gis naa fa omelette tuktuk waaye ndekki ma loolu man tey tàng na laa bëgg. tàng na. tàng laa bëgg. may ga waaw. Oh, am na yow daan nekkee may ga yooyu yow nag yow nag. may ga laa bëgg. yooyu booy lañ ko daan dékkee nag yow nag waaye dootul léegi nag ah, mais temps booy lan gis nit ñi lu tax ñu rëy naan ay temps booy. mais temps booy am na boo demee ba mag i yenn saa yi gis nga man amoon naa fi benn gan bi mu jógee ba États-Unis ñëw ñu ñëw technicien affaire yooyu mu ne ma ñëw bi mu ñëwee daal demaat tàngana ndax neen li nekk foofu yëpp moom la namm mais bàyyi leen complexé quoi xam nga ne ma dégg naa ay yàpp ñoo fa nekk xam nga yàpp yoo ah, foofu euh, foofu may nga fa dañuy dañuy defar kii quoi. yàpp boo bëggee yàpp gi yàpp gi ci frigo bi euh, ngay jaay defaral la. mais man je pose la question quoi parce que damay gis nii. Euh, dañuy jël brochette ah def ci def ko ba pare di ko jaay fukki dërëm mais fukki diram euh, kooku noo noo cee amee bénéfice. dañ ciy génn de xam nga ñu koy fejete noonu dañ ciy génn de brochette yooyu. waaw waaw dañ ciy génn de. mais loolu dinañ ci génn. ah waaw waaw waaw dañ ciy génn moom. Ah, hmm. mais kay ma waxal ah. hmm. bu demee ni yàpp kay kaay ma déy la kaay kaay ñëwal ma déy la gis nga kii ko yërëm ci lay rey boppam ci tàggatay ah. naan jël naa sax di defal nañ ma procès ci lay rey boppam waaw sa waay foo ko fekk mu ngi nii yugg ah, ah nii waaw été <laughs> mu ni bàyyi di di ma bàyyi sa dof dof la bi suba ak léegi mënuloo ma bàyyi bu ma dugal say détail bu ma dugal say détail bu ma bu ma dugal say wax ni yow bàyyi tànga tutu bu loolu ngay lekk kii mooy sa valet ah da nga koy yónni ko sa yàpp mu yónni ko sa man bu ma toppatoo bu wax sama mbir. bu ci dugg tàng na boobu nga foofu nga concentré wu laa bëgg nga ba baaxul. jaam yow kon yàpp boobu ngay dundee. ah moom lay dundee ah. yow kay moo tax la fekk rek nga di yugg yugg yugg. waaw li mu dele na indee mu ne damay sawi. ma maa ngi lay xamal leen bi. ah. moo yey kat. waaw moo yey moo yey kii ak ma gën a te ñu ngi xool xool xool. yaa yey. da ngay jëw yow. ah oui oui ma. ah oui ma. Ah. ah xoolal xoolal waaw man julli ji naa ko. ah, ah. dangay julli ji. ma <laughs> doo góor de doo góor de. ah <laughs> doomu raam. ci lay rey boppam. ah ci lay rey boppam. moo tax foo ko fi kër gi. <laughs> muy def. yàpp yàpp la ah. yow doon wax sur la viande sur la viande celui qui bouffe bouffe celui qui bouffe pas tak tak. mooy viande boobu. non c'est na de en tout cas foofu na de. ah nooy na neex na. xadi xadi kër gi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne xam nga ne kër gi tas na. te fi mu ne dañ koo fas yéene tëj dem ndax ñoom day njaay ñii li ñuy wax waxe kuy dem lay doon boo fi nekkoon di tëj di fay kër gi ku fi toogati kan lañ fi toogalati bu ñëpp demee nu ñuy def sa tonton Tafa nag woowoon na ma nee na dafa benn kër bu ma bëgg a jox ñu nekk fa man ak yow waaye man sama bopp maa xalaatul man sama ngoor mayu ma kër gu amee naa di fay maanaam demu fa dëkk mbaar ci mbedd mi ma ko gën ma ko def léegi nag looloo tax ma woo la ba xam-xamu ñu war a def nga wax ma daal bu ci amee loo ma ci xelal parce que cas bi critique na de jaaxle naa trop trop te xam nga ni man mënumaa dem naan damay dëkk fenn bàyyi sa papa ginnaaw sama ngor mayu ma ko xadi xadi mënumaa nekk yéen muñ fi lu ne ba heure bii sa papa lii ko dal ma di ko fi bàyyi di dem naan damay dëkk feneen man duma wor duma goree di duma fecc ko lore man bu ma ko defee wala keneen def ma koy ba tey baax na waaye man du mës jóge ci man ci àddina du ma liggéeyal samay doom ba heure bi ma di ko yàq duma ko def yaay dégg naa bu baax li nga wax waaye nag situation bi fi mu toll nii man ak yow ñaar doomu lañ te kat fu ñu war a dëkk man ak war waruñoo mën a jafe lenn nag laa lay proposé sama papa dañ ko jël yóbbu ko sama kër maam Tafa man ak yow ñu xooli néeg bu ñu dëkk ci ndax kat yaay situation bi nii mu mel nii ak sama papa nii mënoo ko gàddu di ko yóbbu fenn mën nag sama xalaat doom laa lay wax. xaj wax dëgg yàlla loolu sama ngor mayu ma ko nekk ak moom pendant tant d'années lii dal ko tey ma xëy jëllaxi ko ci papa Tafa kon naa dina ngàbb ma di. lu ñuy wax dafa metti mu mu daw bàyyi ko bu ñoom day njaay demee as su dem xadi baa ba dem man ku ko yor papa Tafa mag la wér da ko mën a yor man loolu sax sama ngor mayu ko yow loolu su ma ko waroon def sax sa bopp yaa ko waroon a tere xadi yaa ma mën a dimbali ci sa papa loolu moom xalaatuma ko. yaay gis nga bët du yenn waaye xam na lu bopp àttan man na gis nga problème yi ma toogaalee nii dafa maa doy sëkk sëkk sëkk ndax umpale bi may commencé sama commerce buu ci boppam moom moo ma géraloon lépp te prêt boobu noonu ma defoon buu moo ma garanti lool te maa ngi reyante ngir fay loolu noonu yaay man problème yi ma nekkee man mënuma ci dolli leneen rawatina naan dañuy yëkkati sam papa di dem dëgg la buu du seetaan lool de waaye dafa rayante ba dee yaay buu daa rayante ba dee te ñaari doom nga jur nag bu dem na bàyyi ma fi man bu ma la toppatoowul mooy man échec naa léegi nag boo ci bëggee dolli sam papa nag mu nekk beneen problème te kat nag yaay naa la wax dara liñ nekkee yëpp sam moo ñu ko teg man la buu nangu du ma ko nangu mënuma ko sax ba di ko jéem mënuma ko beneen affaire tamit naa la ko wax bàyyil bu ñu toogee di wax ci man ak yow ngay wut keneen mu ñuy ñetteel sama ay projet yaay bu ko waxati awa loolu rek laa lay ñaan buñ toogatee di wax ci lu ñu concerné man ak yow bu ci boolee keneen. xale buuree xam nga bu fi nekkoon tey lu abandonné sa papa mukk ci àddina dangaa bëgg tey bu woon ma ginnaaw jéppi ma ma ko def sa papa na ma def lu ne d'accord waaye man jomm naa di fayantoog moom sama ngor mayu ma ko damaa jur ak ay moom ay doom bëgguma xale yi alku te loolu sama xol moo ma ko mayu mënuma ko sànni duma ko def ci àddina naa jaamu yàlla ci moom rek ba man ba fu nu yàlla di tàqalee muy noonu waaye li nga wax mënuma ko mukk ci àddina yaa waxuma la benn yoon ngay fayantoo ak sama papa waaye dama lay xamal ne la man li ma nekkee mënuma ci doole leneen fi mu nekk nii damay taxaw takk sama ndigg liggéey ngir li fi bu bàyyi ma lijjanti loolu noonu yépp sinon yaay moom moom mooy man moom xanaa naa dee rek fekk ji boobu man mënumaa engage lool de dama la koy wax tey jii nii nga xam ko ci ba muy teel am na loo xam ne bu ñu dalee ba ñu agsi fii nii sam papa moom moo tax sam papa mii moo ñu ko teg bu dafa daw ba dee toppatoo na ko ci boor bu nekk te anamu tey ani bu li dal bu moom nga bëgg mu dal ma duma ko def yaay xalaatuma ko sax nag. xadi nit di fàttaliku soo fàttaliku rek da ngay soxor te sa bàyyi la moo la jur waajur la loo ci mën mënoo ko sànni man aussi mënuma ko sànni nañ jaamu yàlla ci moom rek ba lu yàlla def muy noonu. de toog tamit ci kër ga tuuti jaar naa fa léegi ñu ne ma yaa ngi fii ci sa doom ji nii. waaw ah, ma seet si Fatou Kiné yow tam nag day bëgg a muriku nag. Ah, non dangaa nab trop ci doom. ah dangaa nab trop. waa léegi samay mbir laa bëgg ñu wax suñuy mbir ñun ñaar demoon naa seeti sëñ Habib Dia ba wax ak moom mu wax ma la may wax ba ma ko wooyee vocal pour xool suñu diggante ñun ñun ñaar xéewal kese la xéewal kese la waaw ma bëggoon nag lu ñuy def ñu gaaw ci bala ci seytaane dugg parce que ñaari mag lañu ah sëñ Abidjan nee na ma suñu diggante ñu ñaar moom mburoog soow la waaw happiness fël-fëlaa la def lu ñu saf lu ñu neex xéewal yi di wàcc di tuuru <laughs> yow daal. danga maa bëgg a wan ni yaa danga maa fulla. ëpp ñi nga ëpp ma fulla de. waaw léegi yow la ko jaral. waaw ba nga ne danga bokkalante moom noonu yaay. la ko jar a ko jar. waaw la ko nag du ko jar mais bii nag da koy jar loo ci mën benn mën naa ko ci fukk. Ah. waaw. ba ci lan. fa nga jaar ba jaar laa jaar. yow dem naa seet naa ko lépp positif loo bëggati. waaw man ñaar yu positif kay moo gën a dee. ba tax nga nar lan yow. dama koy vocal baa ma seeti ko rek bu ma ci neex. seeti bi moom jaru ko boo demee seeti it ñu per sa temps ah. waaw moom da ngay wax ak moom ci vocal. Ah. wax ko sa soxla lépp mu fanaan moom moom listixaar ko seet ko nag jël temps am seet ko seppali ko ba mu set wicc mu soog laa jóge. moom la numéro. yow joxuma la fi woon numéro ay jamono. Ah, man xam nga man man man ko man numéro yi da ngeen koy waddi kale nag. man déglul 77 378. 78 18. moom bari na 8 bi. 8 kese la. 8 378 78 18. kon jeex na. waaw vocal ko rek vocal ko mu wax la li mu lay wax moom jarul sax ngay seet di man gis na lépp wax na ma lépp. Hmm, bàyyi rek ma xool. ah rek ma xool. Hmm. am garaaw. foo jëm yi daa xamati. waaw ñu àgg kër ah, kër. toppoo ma de. dafa goo ci man dara ba bay topp demal sa kër. yow nag man man man kii man vraiment kii moom dafa siis ci boppam loolu kii. Ah, non def maa ngi ci jàmm ay doom da sax yow yaay kan nii. man la ah, yow foo dëkk. man maa ngi dëkkee Eglow. ah Eglow nga dëkk waaw wax nga dëgg wax nga dëgg. Eglow da ñëw ci kër maa ngi fi bu baax. Ah, man de kontaan naa sax bi ma dajeeg yow ndax ngi doon xalaat dem ba ñëw te gisuma la. dëgg la dëgg la bàjjenu ñëpp. waaw ah, loolu moom wóorul bàjjenu ñëw ba ci biir kër gi te gisoo ak man loolu moom wax dëgg yàlla wóorut. waaw waaw bu chaque jour dama doon wax say wax. man kay affaire sax gis naa la. Ah, yu gërëm nga wax. Eh, man kay bàjjen man sax j'en profite parce que xam naa ni fee ma jógee ne xaw sax lu ma fa wax bàjjen. ndax la. madame Ba Ndeye Ndiaye. waaw. naan leen damay génn ak buur te man bàjjan damaa ñëw ko jaale si woon ndax am naqar mhm. bàjjan bu ma déggee ni bu dee na dee na génnee buur daf maa diggoon ni daf may takk weer bu dee ah, ah waaw waaw yàlla dogalul loolu moom yàlla def na wàcc na gaañu na waaw dee tas sa yaakaar sax yàlla yàlla mooy mooy bind ay ay ay noonu yow amoo saas ndax lenn am ndax ñi mu dajale ci biir kër gi nii ñëpp ay soxnaam nañu te yow dala doon doxaan bëggoon laa takk yàlla def na takku la moom foofu na gaañ ndax bu la heure bi fekkoon ba te yaay tënj bu fi jooy bu fi jooy bu fi jooy ñi ngi toog muuru maa ngi naan sama xel bu ngeen xamoon li ma toogaale man mii bilaay ndeysaan sama yaakaar a tas tas na moom ay garaaw amul benn problème kay dafa def nag man maa ne ci kër gi maay kër gi lépp lu waay di joxe ci njaam man mi ko koy teg sama loxo yaa ngi dégg su ko defee man yenn saay yi maay toog fi ci buntu kër gi di def ay sarax jënd ay biscuit ay soow ak yenn saa ma togg yàpp xaw moom yooyu la gënoon a bëgg te yoo xam naa ne xale bu am personnalité nga xale bu am dignité nga waaw ko xool ne ko sañ seen xam ne euh, mosum am man damaa gën a gis sax kuy jaale teg greffage wàcce ko côté bii jël kol ga sànni tam gàddu saagam ndax lii ko civilisé rek ko mën yaa ngi dégg bokk ci xale yi léegi laa sa tuuti may këpp di dee baax xam di dem dëj nga jël sa kanam gi laal gi raay ko tuuti am nga loolu daal mu ngi noonu njaal gi sama loxo lañ koy teg bu ko teg ci loxo kenn maa ngi taxaw nag yoro lay xaar. bàjjen nag man may li may jaale joxe naa ko ba pare. jox naa ko yaay bu ak ay jabaru mm. nga yow da ngaa foog ni man yëguma lu xew. bàjjen li ma bu doon waxee ci yow noonu laa déggee ni yow mi sa xef yi yaa ko tiital ba mu dee. yàlla. kooku mooy doomu raam ay caga lañu la ñuy def ku sa dëkkër dee ñu ñu wër ni da leen doon daxaan pour wut pour wut pour wut fu fu ñu toog yow de sa yu ruus yi nga ne kanko nag yow doo dugg ci biir kër gi yow nag xamoon nga ni yow yow xam nga ni yow yow xamoon nga ni nga dajeeg man yàgg naa dégg say wax yow yaay imbécile doomu raam ba pare man xale bi dafa dafa dafa osé ah xale pàccin man la bu kii man la bu mën a fen yow boo na takk ku mel ni yow yow ba sa takk bu subaa da nga ñëwaat dee may ñapp sa Kiné man damaa woo awa mi pour mu ñëw teewee li ma li may bëgg a wax ndax yaayam asu woo na wax ci yow rafet boole sant ak gërëm ndax durant li mu nekkee ci kër gi yépp nee na wax dëgg neex yàlla mosoo koo def lu ko naqari mosoo koo wax lu ko naqari asu nee na fii boo fi muuroo danga fee war a muuru teñ fi ba sa idda jeex looy def nga def ko ndax loolu yëpp ci jàmm ak salaam la xaj tey bu ngeen sequl woon jàmm ba mu fi jógee moom kon du woote ba tax na mu yónnee ci yëkkati fanweeri junni te ko sama loxo nee ko teg sa loxo wala sant ak gërëm looloo waral ma woo awa mën a toog teewee ko ndax ndayam moom ko jox te dama bëgg lu leer amul nag sa fay moom maanaam am na fu muy commencé sant waaye amul fu muy jeexale te yow xam nga ni kër gi kenn meraw la kon bu asu defee lii rek gën naa rafetal diggante te gën na ko war a taxal macha allah dañ ñaan la rek yàlla na nga mu rek jàmm ak salaam kenn meraw la li nga wax de lu rafet la te kenn mii de méritoo na ko ndaxte nit ku baax la te man de lu baax rek la ma woon teraanga rek la ma yàgg def nag ndax xam na ne man mi may premier dama daan fekk ma toog ci saal bi mu yëkkati xaalisam jox ma ni ma nayam sama diggante man ak yow ndax xam naa ne soxla nga ko loolu nag mosoo bëgg ma wax ko waaye tey wax dafa jot moo tax faaw ma wax ko bu nag féete woon man ci palaasu baay man buum moo nekkoon sama baay moo tax bi mu deewee ba tey damaa jaaxle kon nag sama yaay bu defee lii dama naan man la ko defar ndax maa ko waroon def su ma amoon lu ko ëpp dinaa ko def dañoo kontaan nag ci moo tax ñu def lii. dëgg yàlla xaalis bi bëggoon naa ñu joxante ko ci ay teraanga bu bégte. dañ naan jaam ak pexeem yàlla ba léegi yéen may jàppale bu baax ndax li dafa foor ci man sama néeg bee sax bëgguma fa fanaan mais ni ngeen ma taxawoo boobu ba léegi wéetuma asu nag gërëmal ma ko bu baax ne ko man dong ñàkk ma ñun ñëpp a ñàkk ni ngeen ma ñeewantalee noon laa leen ñeewantalee surtout kii ndax ni mu ko waxee rek bu du magam papaam la te awal yéen dëkk ak moom mais xamoo leen ko dëgg la ku jóg ne dafa réew waaye nit ki mun ngaa accumuler yenn frustration yi su demee ba bëri ci yow doo xam ne doo xam nan nga koy nan nga koy génnee donc am na nooy waxee ak nit ñi rek dañ naan kii dafa reew mais am na jaar-jaar yu métti yoo xam ne ku mu fi daloon ci yéen ci mag sax doo ko àttan sama xale donc nga nekk ak xale nag moo tax famille polygame des fois xale yi yaay dañ leen di woo di waxtaan ak ñoom ndax soo toppee wujje bi toppee defante bi ci jëkkër da fàtte doom te doom des fois mu dund dara ci mbedd mi yow ci yaayam sax doo am jotu laaj ko lan moo xew ndax doo ko sax doo ko sax bàyyi xel bay xam ne kanamam kii am na changement donc ngeen bàyyi ko xel bu baax xam ne seen doom la ngeen téye ko ndax mu neex mu naqar yéen a ko jur man damay dem waaw bi ci des nag mooy maa ngi leen gërëm di leen sant daal waaw dëgg de boo waxee ci moom noonu la kontaan. ndax euh, awa defal na la loo xamante ni man mii di ndeyam sax defaluma ko mm. ndax fekk naa ko fii muy fóot say yére mm. te kon loolu jaamu ci la lépp xaj ndax xale moo neex a lebal te li muy doon doon xale moo ko lebaloon leneen ci kër gi du la sumbal say yére nit nag bu nekkee ci naq dañ koy bokk ak moom mm. parce que nit nitee garabam waaye nit nit mooy bosanam te ñun dangaa bokk ci ñun nga jóge fi yaa ngi ci ñun nga nekk fi yaa ngi ci ñun mm. kon amul leneen lu dul sant rek ak gërëm mm. yaa ngi la dundoo jàmm ak salaam mm. li la wax na la nag continuer na ko doon muñee rek metti na mais lépp day jeex incha allah yàlla baax na maa ngi jóg transféré la xaalis bi sa compte dégg ah, ñëwaat ma ko sax. <laughs> xale gi bëgg a dem ba tey dama laa dénkul waaw loolu baax na baax na ah, waaw liggéeyal de Mouhamed ñoo na fi barki dem moo kaso seet si ma di bàyyi daan lañuy seet si ñun dañoo màgg léegi sax ah, waaw yàlla baax na góorgóorlu rek yow insha allahu rabbi man léegi ma ñëw mu yàgg de maaleykum salaam du yàgg de coupure amul toogaay ma incha allah merci beaucoup. sëñ Diab li nga war a laaj. man de dinaa doon laaj. kon njëkk a ndigal yi. waaw. ak njëkk yooyu lu ñuy woon. ah seen kër fii fi la yooyu dëkk. yooyu toll ni man. jigé bii bu bu bees la dañ koo defaraat yokk doos bi waxuma la yoo mais muus yi tax di leen dàq ba danga koo pomp ndax la ñuy dee wóolu. xamal naa leen de bu fekkee li mu mën kenn mënu ko. kenn du kenn ko mën nag. xaaral dégg ñu ne léegi vite fait c'est bien fait. moom kay c'est c'est c'est vite fait. place ba kenn du ah dafa dof nag dafa dof moom xel mi neexut waaye li mu mel nii de xamal naa leen kër gi yëpp laa ci pomp kër gi yëpp yëpp yëpp yëpp garab yeeg fleur yeeg mango geeg lépp laay te moom tey laay toj kër gi moom. la ilaha illallah boo ma dal saal bi rek ay yoola ndax jéeg ju saltee fi ne talu ñoo bale talu ñoo raxas talu ñoo def dara saltee salte bi bëgg dee waaye bii. <laughs> te maa moom ba allah allah si